salaamaaleykum wa rahmatulah bi ñu ngi jaar bu baax a baax Bougane Gueye Dany na leen def ba am ngeen tawfeex bu baax a baax ñu ngi jaar bu baax di la màggal di laaj nag yitte yi dégg nañ temps sa activité am na solo trop mais ñun tamit nag bëgg nañ ci gis suñu bopp ñun waa région Kaffrine benn village bi ñu wax Taïba Kër Seet mu ngi ci région Kaffrine commune de Kacot dañu am problème yoon te suñ yoon bi nag amuñ ci benn yaakaar ci ku dul yow ñun nag yàgg nañ dégg sa tur mais xamuñu woon say activité mais Aline Gueye Thiaroye sur Mer bi fi dikkee. ci euh, dese gorom boobu noonu ci la dugg ci dëkk bi di def ay visite ci biir dëkk bi dañuy am yu muy leeral ba ci lañ xam ne waaw kanam kii kat boobu mooy loolu ñu am yaakaar ci yow trop nag waaw léegi nag suñu yoon bi nga xam ne dafa yàqu yoon bi ngay gis nii diggante ak suñu hôpital 7 kilomètres la suñ village ak hôpital bi ñu war a dem di faju ci 7 kilomètres la fi la ñuy war a jaarale suñu malade suñuy jaarale suñu lépp mais dafa yàqu ba gis nga lii nii ngay gis nii vidéo bi ngay gis nii benn taw taw mooy vendredi passé moo dagg yoon bi nii te fii lañ war a nawetoo jaar léegi nawet bi dañu am problème dootuñu mën a dem fenn dootuñu mën a dëpp rek problème mu ndox mais yow rek nag lañ ci yaakaar suñu yoon bi métti na bugaan ku ñu am ku ñu ci jàppale ñun suñu yitte yëpp loolu kese la amuñ benn benn yitte bu dul suñu yoon bi bugaan ku ñu rek incha allahu rabbi daañu la jàppale bu baax baax ñu ngi lay bàyyi xel bu baax parce que Alioune Gueye bari na lu ñu expliqué ci yow am nañ yaakaar ci yow trop nag bugaan amul kii amul kii amul kenn ku ñu suñu yoon bi ku dul yow parce que war nañ ko bépp ponkal dikk na fi xool ko mais dafa fi tus ku fi dikk rek ay digge la ñuy rey ak waaw ay ay yaakaar ju rëy ñu coow lu bëri dem yoonam mais Bougane Gueye gis nañ ci yitte ci Sénégal gis nañ activité yàgg nañoo topp say programme parce que Aline Gueye mooy loolu nit ku baax la nit ku firi waaw moom tamit nag yàgg bari lu mu ñu expliqué ci yow quoi ñun tam gëm nañ ko gëm nañ la am na ñaaxar ci yow trop Bougane ku dul yow yaakaaruñu ko suñu yoon bi bugaan ngay dimbale ñu ngir yàlla dimbale ñu lillaahi wa rasuli bugaan defar ñu suñu yoon bi incha allahu rabbi boo ñu defaree suñu yoon bi luy loo wax suba ba ngoon par nañ pour ànd si ak yow loo pare par nañ pour ànd si ak ak yow loo xàcci loo yëkkati wax ñu dañuy xàcci ndoog yow dóorandoo ak yow incha allahu rabbi parce que Alioune Gueye ji nañu lu ko jar yow tamit bëgg nañ nga jàpp ci gën ñu dëggalal li nga xam ne moom la ñu Alioune Gueye dig li ñu Alioune bëgg nañ nga jàpp ci yow tamit gën ñu ko dëgëral bu baax a baax incha allah rabbi bugaan yaakaar nañ la trop nag yow da nga nekk dimbali ñu ngir yàlla